ndeysaan daa yaa ngi noonu ndeysaan am naa yaa ngi sible ndeysaan comme ngeen ko gisee Paala Paala ñu noonu kon Paala ñu noonu mais menacé rek rek kooku taxaw ndeysaan da ngay toog ndeysaan ndeysaan mu ngi noonu président baa ngi noonu armée de waaye sifle ñu ngi ci ci jaay bi nga xamante ne mooy la ndeysaan ndeysaan sama xarit sama doomu ndey ndeysaan kooku de Ouzin Femme sans limite rek rek combattre ci biir géew bi ñu ngi dem kaw war a jóg face à Bombardier tey le dimanche 24 décembre 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur et Jami Diarra tête de la structure de production organisée Reug Reug face à Bombardier ci biir géew bi ñu ngi lewtoo Bombardier deux fois roi des arènes face à Reug Reug le challenger redoutable redouté mais coono jig na mais seen naa leen coono jig na waaw waaw grand combat la combat de déclenchement pour Reug Reug combat de relancement pour Bombardier noonu la fa demee moo tax ñu ngi Leewtoo Bombardier moo ñu wan ginnaaw Bombardier moo ñu wan kanam am ñu neena ñu bëre ndeysaan am ñu lam ñu saxaaxe la bi neena leen bëre leen lam ji enjeu bi botol noonu rek rek dafa bëgg doon roi des arènes Bombardier doon na ko ñaari yoon loolooy différence bi moo tax ñu dem Bombardier doon na fo Bombardier doon na rek waaw waaw wut ma mère Ouzin Fane sans limite bu yéeme ngay am foofu. sama xarit sama doomu la laa si àndal. noonu la fa demee l'expérience le grand le grand photographe le grand caméraman. l'expérience de Bombardier face à face à la jeunesse de de de Reug Reug. waaw mais tey spécial bi l'expérience de Amané a fini par triompher par triompher sur la jeunesse de de de Bébé Diène est-ce que grand combat bi noonu lay jëmee grand contre petit la waaw waaw si na leen day wax ak ñoom avertissement verbal lay doon la bëreel ndeysaan ñu lay ñu doon caxaw ñu bëri na loo xam ne si la la ko la des ko mais lu mel ni réew mi nag la mu waxee di xaar wala fa demee dafa bëgg a teey day teey bëggul asaaloo combat bi bëggul sa sa combat bi moo tax mu taxaw géej jàkkaarloo adversaire am ndeysaan am sama doomu ndey sama doomu ndey booy ñëw maa ngi koy ziar am bu pikin ndeysaan am bu pikin mi ngi noonu ndeysaan yow coobi ci ñëw ba léegi dara amagul ba lépp yi passé rek rek rek rek pied droit lañ ci jël Bombardier pied gauche mais mais mais est-ce que nekkul euh, pied gauche Bombardier bi moo xaw a tëjal rek peut-être bien mais mën naa koy fekk stratégie la Reug Reug bëggul saa saaxal combat yi puisque dafa jóge ci défaite première défaite ci carrière am waroon enchaîné waat deux défaites loolooy problème bi. te nag ah, seen naa. waaw waaw Reug Reug pour mu am dara foog Bombardier xaw a yëngal tuuti. mais moom moo mën a yëngal Bombardier. waaw foog mu xaw ko jëm gauche mu déplacé wu. ndax li ñuy gauche li ñuy samp dama ragal mu tëj am ji. kii di euh, Reug Reug moom moo war a moom moo war a moom moo war a amorcer attaque maanaam ubbi ko ci xeex bu xeexee Bombardier jéem ko déstabiliser. pour mën a am ouverture. arbitre baa ngi ñoom. noonu la ko dinaa ko bëri leen bëri avertissement verbal ba léegi. ñu def leen bëri leen sama gars. est ce que baa ngi di oh leen bëri leen. Bombardier rek rek ci biir géew bi ñu ngi ñëw too. Boy Sow bi ci géew. Boy Sow wala Bombardier rek rek. Bombardier face à Reug Reug. Avertissement verbal. Woon na ci géew bi. Waaw woon na ci géew bi. Woon na ma nga wax ak moom. Bombardier avertis nañ ko. Waaw waaw. Dëgg la avertissement. Ku ci nekk am na benn avertissement. Dina am benn avertissement. ndeysaan masala bi si la waa génn na si diggante si la waa si diggante la nekk ak Bombardier loolu la ñuy dox si kaw ndànk-ndànk waaw waaw mais moom la jaadi moom mooy xale moom moo wut si rek nag moo wut si moom moo war a jël ay initiative Bombardier li mu war a def ci lamb yëpp def na ko Ousseyn Bombardier dafa béy ak quatre génération Bombardier dafa béy ak ay magam bëri doomam bëri ak ay rakam instant bii mi ngi bëri ak ay rakku rakaatam kon kooku def na lu la ci làmb instant bii rek nag moo bëgg a prouvé kon moom moo war a dem ci li am ah, ba léegi grand combat bi tam production moo ñu fi woo fi arène nationale ci diggante rek ak Bombardier jëm Assemblée générale loolu yëpp ñu ngi koy ñooxu. tey dimanche bi jam production mu organisé. suba lenn bi jam production mu organisé. noonu la fa demee. ndeysaan mu ngi noonu. rek nag boo ko jëlee rek sàmm sàmm na tànk bi. daa bëgg a dem waaye bu demee la la fay fekk. daa bëgg mu jóg. loolu nag dafa bëgg a dem waaye bu demee la la fay fekk. daa bëgg Bombardier maam. mais moom boo ko mën a jóg loolu Bombardier mag la. foog mu cokkaas ko. ah foog mu cokkaas ko. foog mu wol bi ak bagaar. cokkaas yi fi la ñu faral moo jóg ko. mais bu taxawee comme ça di xaar Bombardier day taxaw mais Bombardier pied gauche bi ñoo sóoraale si pied gauche boo jàppee bu tuddee tànk bi dana tëj. waaw waaw waaw waaw waaw waaw allo na ma si kanam bi dawal na ko si diggante ba. est ce que dafa mel ni. dafa ñu rëdd gëli na ko. rëdd gëli na ko. rëdd gëli na ko. rëdd gëli na ko. Bombardier mu ngi koy bal. Bombardier mu ngi koy bal. loolu am na ngeen. waaye loxo bu ngeen. Bombardier bu loxo bi génnee. Bombardier bu loxo bi génnee. loxo ba koy génn. ba koy cax ba koy gal. ba koy gal. ba koy àll mbégte motu ma sam ndaxam. waaw waaw motu xalaat naa lool xalaat naa lool. waaw tey c'est le dernier wala. bu ñu xoolee âge bi ak ki la daal nga xam ne doon xale est-ce que yaakaar nga ni Bombardier amati na place ci làmb. waaw non après ñu xoolal staff bi rek. voilà. lan ngay wax làmb làmb. làmb dañ ko tëral. lamb daf maa bégal moo tuma naqar waaw moo tuma si am naqar sant rek moom moo war su ma amee sant su ma ñàkkee ma sant yàlla rek rek est-ce que am na avenir ci lamb bi am na avenir kay am na avenir war na dégg si koy dégg si mbir ko suma dégg yàlla baax ñu ngi lay gërëm jërëjëf waaye ku jaami rus Bombardier ngi noonu ndeysaan lamb fo la waaye ku jaami rus champion la ndaanaan la te mel na si lamb ndeysaan mooy sama mbégte mooy sama sama sant naa la waaw damay sant damay sant waaw parce que wala dama su ma ñàkk rek di sant parce que am naa mbégte bu ne kon su ma ñàkkee damay sant yàlla waaw yàgg na yàgg na mais sant rek merci waaw waaw